الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأخد وتنفرج به الكرب وتغدى به الهوائج وتنال به الرهائب وحسن الخواتم ويستسر الهمام بوجهه الكريم ورسل في كل لمحة مناصر بعد كل مهلوم لك di nuyu mbokku internautes yi ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñu suivre ci suñu chaîne bi di leen jox loxo kenn ku nekk fa nga nekk euh, tey dañu ñëw comme ni koy faral di defee jamono bu nekk ci indi ay njariñ ak digle yu am solo euh, tey ñu dikk ci zikar zikar bi nag yoon la ci secret boobu ñuy wax umu Moussa umu Moussa ñu bari ñu ngi koy wër di ko wut eh, te fekk ne eh, feeñ na ci asmaa ulaay xusna yi eh, te li gën moom nga woo yàlla ci asma ulaay xusna yi falillaahi asmaal xusna fad'uuhu biha yàlla moom soo ko dee woo ci turam yi rafet rek mu wuyu la wuyu bu rafet te boo ko dee woo ci fii moom mu lay woo ci kaw yàlla fi nga koy wuy woowee waaye moom ci kaw la lay wuyoo ndax moom foofu la nekk te bu la fa xasee wuyu rek mboolem euh, malaayka yi mboolem muqarrabiin yi dañu daal di bëgg ci yow dañu daal kontaan ci yow di la sa di la safoo di la sa yow tur yàlla moom képp ko xam yoon wi mu ci jaar rek di nga jariñu bu baax a baax a baax waaw ndax yàlla li may faral di ne dafa tabe ba du neenal mukk mukk mukk mukk mukk ku yéenam sell képp ku woo yàlla daal ci yéene bu sell sell sell eh, sellal sa yéene sellal sa jëmm ci laab fexe itam nekku dëggu suñu borom dana la nangul eh, ndax yàlla bu ne loolu awit allah aw atu rahman ayan ma tat foo falowul asmaal xusna loolu yëpp boo déggee mu koy wax day bëgg nit ki rek di góorgóorlu ci di ko tudd ne woo leen ma yàlla wala ngeen woowee ma rahmaan waaw woowee leen ma allah wala ngeen woowee ma rahmaan ndax yàlla mooy allah mooy rahmaan mooy rahim mooy malik mooy xudduus mooy salaam mooy muumin tey dañu indi secret boo xam ne mooy jàpp soxabidu soxabidu mu bari dañ koy euh, liggéey ci wàllu umum saa waaye lim indi ci soxabidu mais du soxabidu nit ki di werd su dee werd mu ngi allahu latifu allahu latifun jaamiun fataahu razaax loolu lay werd allahu latifu jaamiu fataahu razaq boo xoolee eh, adat boobu boo ko génnee juróomi yooyu day jàpp ba léegi soxabidu di jàpp um Moussa soxabidu mooy jàpp allahu muhammad boo dara bu sept fois léegi allahu muhammad mooy jàpp cent cinquante huit léegi allahu muhammad tam mooy jàpp ñaari kumtu mooy jàpp tam yu xaanidu yu xaanidu turu yaay Muusa la yu xaanidu boo ko dara boo deux mu jàpp cent cinquante huit cent cinquante huit jàpp allah muhammad léegi euh, boo dara bu allah muhammad muy euh, amul la am muy amul la xudu mu jàpp cent cinquante six mille cent cinquante six cent 1106 1106 waaw 1106 lay jàpp bu ko defee 1106 yooyu ngay liggéey ci allahu latifun jaamiun fataahu razaax boo ko dee liggéey ci lim boobu incha allah di jàpp um musa di am wërsëg bu barkeel di am bayre di am uppiku dinga am ijaaba dinga am xabul bu defee juróomi tur yooyu lay doon eh, képp koo xam ne daal gëm na ko di ko def parce que ñu bëree bëri bu ñu bu dañuy réeree ne tur yàlla dara gënu koo màgg ci ngay koy jaaree ci maanaam yoon wu set yàlla allah la tudd rahmaan la tudd raxiim la tudd latif la tudd maajid la tudd euh, fataaxu la tudd razaax la tudd bu ko defee soo ko dee jaaree si tur yi rafet rek dina la dina la dina la wuyu dina la wuyu moom daal fexeel ba sa yéene sell rek lu jiitu itam nga di ko jaamoo yàlla sa borom subhaanahu wa taala soo paree itam ngay ñaan sa soxla li nga bëgg di ko ubbee salaatu ala nabi ak istighfar di ko tëjee salaatu ala nabi itam eh, boo ko dee defee noonu rek moom ala kulli xaal di nga gis barke ak njariñu lii ñu la wax ñu bëree bëri nag dañuy topp ay talsam topp talsam ak tur rawxaan yi bu mu gàllankoor leen seen diggante ak seen borom ñu sax jàpp ne bu ñu wérdul ay talsam rek li ñuy ut ci yàlla mun ñu koo am te fekk ne bëri na koo xam ne loolu moo ko gàllankoor su yemoon rek ci asma la asma olaay xusna yi dina jot lu muy ay sàkkutéefam te it dana jot itam leer ak barke tur yàlla yi nga xamante ne ni yàlla moo ñu diggal ñu koy woo ci turam yooyu yaa xam te nag képp koo xam ne yaa ngi koy def ci wàllu zikkar doo jot mbukk la ngay sàkku ndax yàlla ku yàqamti bokkoo ci xaw nit ki dafay topp rek eh, doo gestu doo taxaw doo yokkat li ngay def tam mu nekk lu constant loo xam ne danga koy def ci waxtu yu nga saxal di ko def di ko def itam ci ak dal di xeeñ xet gu neex la ko lañ di jëfandikoo cuuraay yi nga xam ne baax na loolu ci wàllu zikkar bu ko defee soo ko dee defee noonu rek balaa yàgg dara rek di gis bu baax a baax a baax ay njariñ yoo xam ne loolu mu ngi koy jur di nga baax njariñ yoo xam ne loolu mu ngi koy jur képp koo xam ne yaa ngi dégg suñuy leeral yi xam ne ñu ngi koy baaxee yàlla na nga ko jëfandikoo soo ko jëfandikoo itam lépp lu ñu soxla yàlla ko gis yàlla na yàlla nangul képp koo xam ne yéenam sell na képp ku bëgg lu baax képp ko wut yàlla na ko am di ñaanal yàlla ñi feebar nekk hôpital yàlla may leen wér dellu seen sago dellu seen njaboot ñi caabi féete ginnaaw ñu nekk kaso itam yàlla na yàlla dimbal leen ba loolu teggoog seen kaw buñ si jógee itam natt yooyu bañ leen a dal ñi xam ne yàlla nattoon na leen ñu bëgg liggéey te amuñu ko yàlla na yàlla may leen ñu am ay liggéey yu baax a baax ñu bëgg jëkkër wala walla wala jabar di ko ut tam yàlla na leen yomb ñu faatu nekk barsaax yàlla na yàlla defal leen ay leer fa ñu nekk dafa leen njëggal yóbbu leen àjjanal firdawsi di wax waaleykum salaam wa rahmatullah taala